Maïmouna Dièye daal di euh, nekk un membre de PASTEF li nga ko daal appelle loxo bokk na euh, appel à l' instruction suñ sukkandiku si yoon ak wàllu yonal à la dernière minute nag jàppale ni itam euh, plus de peur que de mal parce que sànq doon leen daal di annoncé que ni mi ngi woon fa nga xam urgence hôpital principal bu à la dernière minute nag peut être lu yes am na si miram ki nga xam ne que moo di Maïmouna la maresse bu li nga xam ne que moo di génn na li nga xam ne que moo di bloc manikon. ni xibaar boobu moo ñu daal di dab si si biir li nga xam ne que moo di biir émission xam naan du ñàkk neen fa daal di ànd ak suñuy ay ndaw tuuti fa nga xam ni te mooy zone hôpital principal euh, bu Ndakaaru parce que nag boobu ba tey euh, Sonko mi ngi fa Maimouna Dièye mi ngi fa Hannibal Djim mi ngi fa. Euh, euh, Pape Abdoulaye Touré aussi euh, mi ngi fa pas mal ñi daal di sóobu si li nga xam ne que moo di grève de faim excepté ki na xam ne que moo di a Dièye sóobu si waaye quand même li nga xam ne que moo di wérgu yaram moom dafa xawoon jagadi donc suñuy ay daw ñuy daal di xamal que ni moom ki nga xam ne que moo di Maimouna jamono ji li ñu di war a mën a jàpp mooy nekkatul fa na xam ni te mooy zandu ko bloc ba ginnaaw rek bëgg bëggee fii daal daanalee si nga xam ne que moo di kaso bi alors Maimouna Dièye

ñu hmm. may ko liberté provisoire pour mën a génn. Hmm. parce que aussi vu son âge. Hmm. parce que je pense que tey kaso am na yeneen alternative yoo xamante ni war nañ ko mën a def. au lieu que ñu jël nit ñi di dugal kaso. bu dee xale sax à la rigueur on peut comprendre mais Maimouna Dièye nekk na maire je pense que il est elle habite à la commune de Patte d'Oie ñëpp xam nañ fu mu nekk. bu fekkee tey dafa feebar ba dugaloon ko mënul rëcc franchement parler man je pense que war nañ ko mën a may liberté provisoire léegi nag foofu aussi il faut que tamit avocat yi jouer seen jeu ñu dem sur le terrain juridique réclamer ko fa comme ça ñu génne ko bàyyi les politiciens dem ci terrain politique bi mais buñu buñu mélanger politique beeg juridique bi rek dina xawa indi soxé ci ci kaawam ko

juridique. Hmm. réclamer ko fa au lieu que ñu top politiciens ci cadre politique bi. ku nekk nañ ko bàyyi ak rôle bu mu jouer hmm. avocat yi nañ def seen rôle mais les politiques aussi ñoom nañ def seen rôle sur le terrain. Hmm. alors donc mi ngi noonu ki nga xam ne que moo di euh, Maimouna Dieng mu daa nekk euh, la mairesse euh, bu Patte d'Oie ma ni kon c'est clair kàddu yi nga xam ni tam Pape yëkkati na ko si que ni ku si nekk na daal di dem si terrain c'est important ñu aussi war a mun a bàyyi xel donc seuls ces avocats peuvent intervenir mais quand même Macky Sall mu daal di justement en seeg li nga xam ne que moo di benn clémence par rapport à ces une politique waaw man il faut que nous def ko hmm. il faut que nous ko tenir compte ci loolu hmm. mais toujours il faut xam le Sénégal dañu toll ci moment c'est un peu crucial hmm. c'est un peu difficile aussi parce que nous xam nañ y a une séparation des pouvoirs même bu que le président de la République tey un peu audace amna ben dayo bo xamanteni ne na au dessus des institutions. dossier non mais quel quel quel que quel que soit les circonstances ñun ñep gis nañ li fi jaar. c'est hmm. pas aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui de 2012 à 2023 hmm. li jaar ci côté juridique yep gis nañ ko mais na gaay xamni lu nek dafa am yoon. Hmm. so beugé ni ñi ñu may ko liberté provisoire da ngay dem ci tribunal ba nga demander liberté provisoire ñu may ko. mais man dama koy wax tout le temps tay dañoo mélanger carte yi lañ c'est-à-dire que mélanger politique ak juridique. Mm. man di wax ak formation juridique parce que fac droit mm. dañ ci tenir compte. c'est-à-dire il faut que ñu baye xel. il faut il faut il faut il faut ñu baye xel il faut ñu xel ci mm. débat juridique dafa am euh, mais débat politique dafa mais Macky Sall ba di le conseil euh, de la magistrature est que parce que nous séparation des pouvoirs à quand même euh, euh, non non loolu waaw loolu loolu ah. <laughs> on l'a vécu on l'a vécu avec Khalifa Sall je pense que ñeneen ak ñeneen dund nañ lu mel noonu c'est c'est bien vrai que le président de la république tey moom moo nekk président conseil supérieur de la magistrature mm, mm. tey cordon ombilical boobu dañ ko war a dagg pour may justice bi mu am indépendance totale pour dem euh, le fait que mu nekk ko mënul jox justice indépendance non affaire juste indépendance c'est ça reste à désirer mm. comme li nga wax ça reste à désirer tey ñëpp xam nañu tey le président de la république su ko ministre de la justice nekk ci am na loo xamante ne tey lu xew moy conséquences yi toujours dañ naan Macky Sall le président le président est derrière derrière derrière ces ces arrestations le président te benn côté aussi doo ko doo ko mën a mim à 100 pour cent quand même quoi voilà parce que ñun voilà comme ni ma ko waxee sànq jaar nañ ci ak Khalifa Sall on a vécu les foudres de la justice foudre boo xamante ni voilà c' était un peu difficile pour ñun mais alhamdulilah on a survécu ba tey ñu ngi taxawaat euh, encore di résister ak moom quoi euh, nous y revenons par rapport ak wàllu bu nu mel mais euh, nga dem li nga xam ne que moo di 3 nga daal jàpp ni il faut ñu couper cordon relation euh, bi diggante justice ak ki nga xamné ne que le président Macky Sall té wane wana mëna wess fo foo euh, li nga xamné que moo le président au delà même si Macky Sall war wara mëna baña mën fal li nga xamné que moo le ministre de la justice waye tam ak li nga xamné que les magistrats donc sûrement war na mëna japp ni aujourd'hui la séparation des pouvoirs mm-hmm. en en votre qualité mm-hmm. justement jëm si juriste reste à désirer trop Sénégal non séparation des pouvoirs loolu mom da fi dess man li ma wax sànq c'est-à-dire bu ñu aussi séparation des pouvoirs bu ñu le président de la mm. République warul ministre de la justice. Mm. président de la République day nommer ministre de la justice. mais c'est-à-dire doole bi nga xamante ne am nañ ko di impliquer ci conseil supérieur de la euh, magistrature loolu la ñu war a romb ku la jox dara wan la fi ngay aw. non xam nga olof da ko wax ku la abal bët moom moo lay wan fi ngay xool. Ah. mais tey ñun ñëpp xam nañ ni y a trois pouvoirs. pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire tey assemblée nationale ak lu ñu ko mën a waxal dem na mais le président de la République ci est toujours les cordons entre lui et le conseil supérieur de la magistrature à chaque fois ñu koy gis ci nomination yi tay mo xolé non non man personnellement nous ñun ki ñu andal mom dafa nek ci cadre bobu dafa nek ci logique bobu dañ nek ci logique rupture bobu hmm. parce que nous dund lu mel non après ñëwaat encore diko appliquer les hmm. les sénégalais hmm. tay lolu pour mu dañ pour pour affaire yomb ci sénégalais il faut que mu am séparation bobu président génn ci loxom ci conseil supérieur de la magistrature ak ministre de la justice aussi il faut que tamit ñu waxo mais buñ ñu aussi séparation que président waru nommer ministre de la justice justice du du loolu rek quoi y' a d' autres yoo xamante ne mu ngi ci. mu ngi ci biir quoi mais na ngeen loxoom si le conseil de la. non conseil supérieur de la magistrature loolu moom président de la waratu ko jiite. loolu moom waaw loolu moom voilà loolu moom ñun ñun ñun moom suñu suñu logique loolu la quoi. ok donc mi ngi noonu euh, li nga xam ne moo di kaaw mooy mën a jiyee encore une fois euh, sénégalais nag ñi si daal di xaar li nga xam ne moo di benn Kelemas daal di jógee suñu kilifa yi moom ki nga xam ne moo di may mën a mu daal nekk mexes bu li nga xam ne moo di Patte fan daal di jaarale ki nga xam ne moo di Juan euh, et pas mal d'autres daal ko fay jaarale

boobu ba tey nag li nga xam ne les révélations se poursuivent du côté de ses avocats euh, maître Clédor semaine bi yëpp euh, semaine bi yëpp dégg nañ ko chaque jour muy def li nga xam ne que moo di benn ko bilan benn ko point jëm si kaw ki nga xam ne que moo Ousmane Sonko. Mm-hmm. Euh, mu ne fu mu toll nii lépp lu mën xew ñoom du leen bett parce que teel leen daal di li nga que moo di alerté il faut daal di libéré libéré ki nga xam que moo Ousmane Sonko balaa yi fii daal di jéggi tayoo ñu gis ni tey jii ki nga xam que moo maître Khoureychi Ba mu daal di nekk aussi euh, li nga xam nekk moo di si pôle d'avocat bu Ousmane Sonko yëkkin aussi ay kaddu mu daal jàpp ni itam jot na nag euh, li nga xam nekk moo di yoon ak wàllu yoonal xol naka la daal wul mu lijjantee li nga xam nekk moo di kaw Ousmane Sonko presque lu daal di toll si 30 euh, jours nag mu ngay def si kaso bi 28 jours yi la daal di suubu si li nga xam nekk moo di grève de faim ma ni kon kaddu yooyu lañ si daal di biral exactement mu nekk ay kaddu kaddu alerte jëm si wàllu nu mel waaye itam mu daal di jàpp ni moom ba léegi Euh, maître Khoureyssi Ba Sonko dafa daal dugg si lu nu mel parce que la ko waral euh, dem na nag ba daal japp ni yon ak war yoonal day daal di sabaat benn injustice si moom ba waral mu daal di ni euh, trouvé wu ben moins lenen peut-être lutul mu daal koy li nga xam ne que amal ci lu nu mel c'est-à-dire soo bëpp si li nga xam ne que moo de fin pour lepp lu ko mën a daal dal rek état bi responsabilité am du ci daal di ben yon donc kàddu yo la daal di dénk waaye tamit japp ni il doit être libéré. Il euh, yi fi di trop tard il a ci de plus en plus euh, la xel et que l'association reste de plus en plus inquiétante du côté du leader de Pastef Ousmane Sonko donc après la à d'alerte du ci nga aujourd'hui on a euh, assiste à bu ki nga xam que maître Khoureyssi alors nga a un membre justement d'opposant euh, ngeen yàgg see nekk euh, au-delà de vos querelles ngeen yàgg aussi li nga xam que moo di collaborer ak Ousmane Sonko mu daal jàpp ni injustice bi nga xam ni Khalifa Sall jàll ak Karim Wade jàll na ñu ko fay jaarale bo waral mu daal euh li nga xamné que modi justement alternative daal di soo possible li nga xamné que modi grève de faim alors tay euh, ñu daal di jàpp ni son état reste de plus en plus inquiétant yóbbu ko fa nga xamné ni itam mooy zone pavillon spécial